kaa waxee àdduna bi yëpp dégg coow li nu gañe la fépp daanaka te fa nga gañe woon ak su ñëw ca élection territoriale la. ñu mhm. gañewaat la fa encore. waaye mbir mi nu ngi ko lijjantee diggante Podor ak la ca des. Mhm. te sanu mbokk ya baax ya nekk foofu ñenn ñi àndunu si loolu. def nañu ko nan ngay ñëwee di annoncer ay résultats ñi nga séqal na la mais fii. nanu compté waat parce que fii dafa lëndam nga lànk ne doo compté waat nanu vérifier nga lànk ne mandataire bi du vérifier ay PV yu ñu yu ñu yu ñu jàllale te kenn si wu ko mais mais ëpp na. Hmm. moo tax ma ne la combat bi du li nu foog toog leen xool. Hmm. yàlla na ñu yàlla may fekke ak tal toog leen xool. waa léegi bu loolu yëpp weesoo ñëpp dem nañ assemblée toog nañ ça dépend ci trois yi instant bi ñoom la ñuy xaar fan la ñuy dem qu'est-ce qui va se passer. Euh, bi ban njeexital lay am ci réew mi. ce va se passer c'est que c'est déjà ce qui est bien dans tout ça. oui il y a du bien dans ce qui se passe. ok mooy Sénégal nee naa la dafa toll ci benn révolution boo xam ni à partir de 1993 la tàmbali. Mm-hmm. au-delà de ce qui s'est passé mm-hmm. bi Abdou Diouf toogee 93 ñu naan Abdoulaye Wade gagné ñi naan Abdou Diouf ñu deen moo gagné Abdou Diouf toog sanu bàyyi ba mu ngi kaa nuyu ba baax papa ñu ngi laa nuyu mm-hmm. naa jamono bi mu ngi Sénégal ba mu gagné lan la def gouvernement d'union nationale bi noo wax nii lanu organiser sanu bàyyi dugg Abdoulaye bàcc lii Abdoulaye Wade ñoom Dansokho PIT. Mhm. ak ñi si des. defe naa Landing Savané rek moo duggul woon su ma juumul Landing Savané boobu nu ngi kaa nuyu suñu baay boobu nga xam ni mhm. jamono bi moom defe naa mouvance présidentielle la bokk hélas. Mhm. malheureusement ci principe ba en 1994 je pense qu'il n'avait pas adhéré. en 2022 même bu dee déggatuñ ko il dans le camp de la mouvance présidentielle. c'est c'est le choix il faut respecter malheureusement. ca processus boobu. Mhm. process boobu ñu nekk ko. oui président Abdou Diouf dawal daal di yoonal libéraliser les médias privés donné yi changé ñu jëm alternance 2000. dégg mhm. naa la wax mu rafetal mujjantalam joxe nguur gi dem bàyyi alal ju bari ci kees gi Ablaye Wade ba mu toogee dafa foogoon dara new fu ndekete daraa nga fa lu am solo. loolu bokk na si li jur président Abdoulaye ba mu toggee mu jël président Abdoulaye jox ko avion teg ko dans de bonnes conditions sénégalais yi naan non non non daf ko waroon def nii daf ko waroon def nële waaye baa nekkee ci kaw daa xam ne xew. Mhm. mu xam ne kii kat dafa defar door a dem te loolu noo sàkku ci nguur bi fi nekk defar leen door a dem ndax da di dem neex naqari picc piccal siggi xulil damm loos yëkkati ñàngal mer yuuxu fëgg taabul dóor. la mu si mënti doon dem nga def te kenn du la joxoñ kenn du la tudd kenn du la taas nit ñi la rombal di dem di lijjanti seen bopp nga taxaw fi nga taxaw mënoo dem mënoo dikk nga kaa lijjanti ci benn ak ñaar ak ñett baa demee ba toll foofu da nga war a xam sa bopp boo faloo ci 65 pour cent en 2012 au second tour de votants nga gañe nit ñi di fecc kaway Souleymane Faye ak Doudou njaay Mbengue way la way wa neex ba ñëwee 2014 ñàkk Ndakaaru au bout de deux ans y a quelque chose qui se passe ba nangoo loolu ci 2014 am jàmm waaye nangu woo ko ngay xeex meer ba fa ne woon xeex ko biir ak biti. caisse d'avance ba nga ko jiiñ moom la la taxawlee taxawlee woon say am di jàmm 2009 ba 2012. ñii faj nañ leen ci ñii defar nañ ci seen ay bët ñii defar nañ leen ci seen ay bët ñii nangam ak nangam ngeen toog ne kees boobu mooy problème du dëgg. tegu leen ko fenn agent judiciaire wala book euh, inspection générale de l'État ñëw def enquête daal ne y a aucun problème il faut mhm. juste revoir la caisse xool ni moo fonctionne nii parce que mode de fonctionnement bi newu la ba tey duggal ci mbirab judiciaire vis-à-vis de qui que ce mhm. nga jël ko politiser que pour éliminer adversaire le combat du président Macky par rapport à la construction de ce pays là a été faussé en 2014 ainsi Mm-hmm. ca Karim Meïssa Wade population yi daan ne reddition de compte la ànd nañ ci demande sociale la nu dawal tuuti population yi de eh problème am na ndax la nu foogoon du ka mm-hmm. ba mbir mi leeree enrichissement illicite ngeen jiiñ ko Karim Meïssa Wade alors que ca liggéeyam ca ministère ya terre ciel ak mer ak la ca des il avait bien travaillé dégg na wax bi. Mm-hmm. ngeen jàll ci loolu faussé combat bi à partir de 2014 ku na wax Ousmane Sonko. commencé di émerger. Mm-hmm. ngeen toogal ko tàmbali jëlee ko fa mu nekkoon ndax lan dafa joxe ay information yoo xam ne population dañ ko war a xam ngeen ne droit de réserve wala devoir de réserve mu lànk ngeen sanctionné ko mu nekk seen adversaire tey kook ngeen dàqee ca bureau impôt et domaine moo leen yóbbu ci mbirab cohabitation bi mook ña mu àndal. donc à kon Euh, ñi ñi nekk yeewi ak ñi nekk wallu ñoo bokk combat. ok. kon yàlla na jéem a jaxase xel yi nañu xam ni. yàlla na nga gudd moo tax ma ne la. amiin seen ay communicants. Mhm. dañuy jaar fu ci prox ndool mhm. pour ruube jaxase yi nekk wàllu. Mhm. ak ñi nga xam ñoo nekk yeewi askan wi. pour def ci seen xel ne bu leen su ngeen ñàkkee volonté loolu lan lañ si jublu mu nekk possibilité pour que nguur bi nga xam ne moom dafay dem rek ci raasaatu roppet ak ak lijjanti. Mhm. comme dañuy lijjanti seen ay député. Mhm. xool nu moo def ba xëcc fii xëcc fee xëcc fa ca des te nan kaa njortee ci biir wàllu. Mhm. ñu bëri njort ko fa bàyyi leen xel tamit ña ne ci biir yeew yi de. bàyyi leen xel ñu nekk ci biir yeew yi de benn ak ñaar ak ñett la te xaalis daa garaaw saa waay ba boo melee ni man nu def la député bu la yàlla dimbaliwul. nga toog xam ne un milliard un million trois cent nga am nguur bi mu jaral ko lu ne liñ tuur ci alal ci élection yii liñ ci tuur ci alal ci mbedd mi lu lu fesul yow ba nguur boobu ñëwee ne la sëñ bi kaay nu toog xam nga yow maag sa yaay sa yaay ak sama yaay ñoo bokk. yow xam nga am na yoo xam ne ñun ñun dañ cee war a taxaw. malgré fi nga bokk mais léegi wuy ma yow li nga am ci avantage weer wu ne. xulil waaw weer wu dee wu ne yaa ngi am un million trois cent comme député yaa ngi am essence la ci des léegi weer wu weer wu dee wu ne danaa la jox dix millions hmm. leen bu baax weer wu dee wu danaa jox dix briques te tout de suite lay tàmbali léegi lay tàmbali booy teel xaaral tak téléphone indil ma dix millions liquide léegi xobet lii sama diggante ak xam nga du dara quinze la sax quinze millions hmm. boo àndut ak sago bu la yàlla baaxewul dimbali la dangaa suux pëtëx muy jur ñu war a voté suba nangam nga jéng wala ñu war a taxawee nen ni ngay informé ci suuf ak leneen ak leneen ak leneen waaye dama la ni combat bi dafa faussé déséquilibré mm-hmm. du yéen ak kii kii la ak borom bi moo tax ma ne la taxaw xool mm-hmm. yàlla ñu yàlla may fekk tal allahumma amin amin amin euh, régie Clédor bu fekkee baax na mën nañ koo dugal ci ligne bi d'accord d'accord. mu ne euh, waaw nañ ko may euh, cent minutes xam naa ni ñu ngi koy dugal léegi nii euh, paasan ñu jàll ci beneen ponk bi wala. demal ci ñu des ci résultat yi ba tey desal ci résultat yi parce que liñ ci mën a wax bari na te du doy. Mhm. Clédor Sène. Mhm. waaye ma ko woo ko de woowu ko de baax na. non non non pas encore. pas encore léegi nañu nañu nañu des assemblée ba tey euh, ci révélation yi. waaw ñi nga xamante ne ñoom la ñuy xaar li ñuy wooyee les loups. ku ci mhm. mel ni Ahmed Aïdara. waaw mi Guy Guy moom xam nañ ni il a toujours été constant. waaw ñoom ban taxawaay voilà Aliou Kanti. kan ngay wax Aliou Ngouye Ndiaye. non non Aliou Ngouye Ndiaye. kan ngay koy wax kii laa wax Guy Guy Marius. gii eh, yaa ngi naan guy man boo ne guy damay xalaat Aly Ngouille mënu ma ko prononcer depuis toujours gii waxal gii gii gii gii Marius waxal gii Bassane mënu ma ko prononcer jàppale ma rek léegi loolu dinaa jéem a fexe ay kii jàngal ma na la ñuy waxee turam bi ku ci mel ni ñooñu nga xamante ne ñooy révélation yi te ñoom la ñuy gën a xaar assemblée ban taxawaay lañ ci war a mën a am nga ne Pa une une une hmm. ma ni révélation yi nga xamante ne ñëpp moom la ñuy xaar ci assemblée bi ku ci mel ni Guy Marius Sagna baax hmm. euh, te hmm. euh, Barthélémy Diaz Mame jaara Fam ban taxawaay la ñu war a mën a am ci assemblée bi ak lan la nit ñi di xaar ci ñoom exactement après taxawaay taxawaay yi ñu jot a am bu ñu bu dee nekkuñu ci assemblée xanaa continuer ci logique bi ñu nekkoon logique bi ñu nekkoon mu taxaw leen di xeex. Mhm. la ñu continuer. Mhm. nee naa la assemblée de rupture la. Mhm. du de assemblée boo xam ne dina exister quatorze mois yi. dana continuer exister wala mu bañ exister on verra comme on dit lu ne mën naa ne. pourquoi am nguur ba bees beneen boo xam ne bu ñëwee amaana leneen dana am yàllaa xam waaye may wax rupture bi am xam nga la mu doon. mooy à partir de maintenant le Sénégal kii est dans une logique de révolution mhm. war a atteindre pic bi mhm. te eggagul ci pic bi mu ngi ci yoonu pic bi mhm. Sénégal toll na fa nga xam ne tey li woon wónni na assemblée nationale bi daan nekk fii di yuuxoo ko tàccoo ko def yëf yi la yàlla xam doy na dootul am si fini léegi ce qui est mooy lan mooy même tey bu fekkoon yeewi askan bi dafa jël nguurub Sénégal bi nekk ca bopp ba li daan am ñu naan jox leen ñu majorité ndax ñu liggéey. Mhm. loolu si fini à partir de maintenant Sénégal nguur bu fi toog nañ ko wutal contre majorité maanaam assemblée bi bu nguur bi am majorité absolue dorénavant loolu mooy rupture bi parce que cela permet d'équilibrer le pouvoirs dafa permettre tey bu nguuram Sénégal ñëwee teg loo xam ne jaarul nguur bi ne déedéet ca proportion ya ak ca norme ak règle ya nekk ca biir assemblée. Mhm. on aura des un groupe parlementaire fort. de mhm. l'opposition te li noo décidé dafa compter. Mhm. te am na foo xam ne bu ñu fa toll ci wàllu organisation biir assemblée ba compliqué à ah nga jëm ca motion de censure dans un autre sens. Mhm. bala nekk sax wàcce ab gouvernement moo di. loolu nag dafa yombal contrôle. nga defee ni tey lii rek Mamour bi ñoo wax quatre-vingt-quatorze milliards su fekkoon assemblée bi. bu tombé woon ak assemblée bi ñu naan quatre vingt deux quatre vingt cinquante six ak vingt quatre ak kon kon kon enquête parlementaire bi day taxaw mu loolu mooy taxawaayu opposition. est-ce que du actuellement loolu la di gën a craindre mooy. dossier mooy sulleekuwaat et que enquête parlementaire mu mën a taxaw ba mën a saytu dossier yi nga xamante ne yëpp. Euh, teg nañ ko table ensuite ce sera sur la base de questions orales. oui te loolu nguur bi effectivement. daf mhm. kaa ragal bëgg ko. Mhm. parce que tey dañoo am benn nguur boo xam ni te man li ma jaaxal ci mbir mi. Mhm. est-ce yéen a ngi ban ci. waa Mbaba garage ñoo dóor Paris Saint-Germain. ala ruube de. déet Mbaba garage ñoo dóor PSG Neymar Mbappé ak ña ca des. yow fi fi ñu eh. fi ñu romb tey seen koñ. seen te li gën a neex. gëlawaar. li gën a yéeme ci mbir mi. <laughs> wuy ma. waaw Seck. PSG ñoo arbitré match bi ñoo wax ñii ñooy joué bëgguñu joué ak ñii lañoo ñoo joué remplaçant yi waaw waruñu bokk encore que PSG miy teg loolu doole jot moom waru bokk ci liste yi est que xam nga ne dañoo ëppale benn ba yaa ngi fàttaliku benn benn bokk yaakaar ñoom waru ñoom sax bokk ñoom ruube nañu foofu ruube fii. Mhm. forcé bokk forcé gagné bari nañu doole de. waaye xuli maa la wax ubbil say bët te xool yàlla ñu yàlla may fekkee tal làmb ji dafa déséquilibré Macky Sall moo jàkkaarloog sunu boroom mm-hmm. wax ji nag ka mu neex nga téeg ka mu neexu bal ka yàlla ñu yàlla may fekkee tal la xool ngeen foog ne mën ngaa nekk ci réew mm-hmm. doon buur ak bummi di def lala neex na mu la neexee na nga ko bëggee ak say mer ak say yuuxug say gëdd say la sa des te kenn du wax nu toog di la xool bu ne pëccët nga jël say service d'ordre nu taxaw si mbedd mi fees fa ni faax jàkkaarloog nit ñi braqué du éen ak ñun éen la ak borom bi